salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki julli di mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñaan sunu borom duñu defal jàmm fu ñu mën a nekk sunu xikma bi nag tey day wax ne sa alani ahaduhum hal raayta allah qultu naam kathiran qaala mata qultu xiina satarani wa razaqani wa aafaani wa waffaqani wa atamani wa saqaani xakim bi neena dafa am ku ma masa laaj ne ma ndax mës nga gis yàlla ndax gis nga yàlla nee na ma ne ko waaw gis naa yàlla lu bari ñoom mu ne ma loolu kañ la ma ne ko ah xanaa ba ma yàlla suturaale ba ma yàlla wërsëgale ba ma yàlla jàmmale ba ma yàlla defalee tawfiq dëppaleel ma samay mbir ba ma yàlla mayee ma lekk ba ma yàlla mayee ma naan lu ci ne rek gis naa ca yàlla waxiinu gis fii doo ko firee gisee bët waaye rek dangay yëg ne lii nga toll nii di ko am yàlla mooy ki la ko may yàlla mooy ki la ko jox euh, te ki ko amul saxit yàlla mooy ki ko ko xañ danga dégg léeg-léeg mbir xew ñu ne lan mbir ma loo xalaat nga ne mën di mbir moom gisuma ci sama bopp gisiin bopp moo tax ñuy wax yàlla nag lépp loo def nga nangu ko ak nga bañ koo nangu waaye li war a am mooy nga gis ci yàlla boo amee gisal ne yàllaa la may bu woon moom doo am boo ñàkkee gisal ne yàllaa jubluwul nga am waaye bu bëggoon nga am danga doyal boo amagut te di dund paree goo jàppal ne bu soobee yàlla mën na la may ëllëg su dee danga amoon ba yàgg amatoo it jàppal ne yàlla mi la mayoon xañ la su ko neexee mu mayaat la loolu dina la dimbale ba situation boo ci mën a toll fi ak yaa ngi cay gis yàlla rek doo ci def lañ lay tere te mooy boo amee doo ca bexu boo ñàkkee doo ci saalit boo yàqulee doo ca weddi yàlla soo amee ay gàllankoor doo ci bokkaale lu ko waral ndax lépp lu mën a doon dang cay gis yàlla kon xakim bi wax na dëgg jullit bu ne yoon la nga mën a wax ne gis naa yàlla lu bari waaw ndax lépp loo toll ci loo xam ne luñ lay defal la rek yàllaa ngi ci biir bu dul woon moomu loola du sotti ngi sant ñëpp di gërëm di jégglu wasalaamualeykum wa rahmatullah